jàpp yéen seen bopp terrain yi xale yi buñ fi nekkee na kenn ñëw disperser leen rassemblement bi baaxul mais ñi nga xamante ne nii nag ñu ngeeg njaboot ci kër gi góor góorgóorlu tey xale yi ci biir kër gi gouvernement tëjul école parce que dañoo nekk vacances arrêté leen football bi aaye nañ leen ko aaye nañ leen ko aaye nañ leen ko respecté ci kanam ngeen continuer waat seeni activité arrêté leen football bi ndax feebar bi toog leen ci kër yi toog ci kër yi yéen taalibe yi yéen eh, dem leen ngeen waxal ma loolu Aliou Seydi Aliou Seydi mooy seen sëriñ nee leen ko jaraaf nee na buñ génn ti di yalwaan nañ toog foofu xaar ñi lu ñu leen mën a jàppale dinañ leen ko jàppale incha allah. il faut xam ne fii ñu toll il faut que ñu changer suñu habitude. bàyyi leen jaayum café mi ci mbedd mi ba ci kanam jaay yu sew yi nañ ko arrêté ba ci kanam njaayum jus mi ci mbedd mi nañ ko arrêté ba ci kanam taxul ci feebar bi njaayum mbedd mii taabal bi nii ñëpp taxaw di jënd loolu nañ ko arrêté ba ci kanam feebar bi moo ko laaj njaayum mbedd mi li laay war a suuli fexe leen lu ngeen di xoolee arrêté ko ba ci kanam sa jaay teg di ko jaay loolu kenn waru ko aaye kenn wax dëgg fa yàlla mais bu jëmee ba gouvernement di ko aaye c'est parce que ministère de la santé xam na ne feebar bi pour ñu bloquer ko dañu war a aaye lii lii rassemblement yii dañu war a aar askan bi yëpp dañoo war a fexe ba lépp loo xamante ni ni nit mu koy def nga jël jumtukaay yi nga xam ne moom nga war a jël ba pare yaa ngi risqué yaa ngi xaru yaa ngi risqué góorgóorlu leen ci dugg ci car rapide nii mu fees nii te amu leen masque erreur la. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, kilifa gi fàttali ñu tur bi. Jaraaf Ndaw. ban fonction nga occupé. bon je suis membre du haut conseil des collectivités territoriales. lan moo sabab euh, ñetti fan yoo xam ne amul guddi amul bëccëg coono gu ne a ngi koy daj lan moo sabab coono yooyu ak lan moo leen ko jaral. waaw coono sax de wax dëgg fa yàlla moom duñ ko tuddee coono euh, dafa am mbir mu am am tolluwaay boo xamante lu luñ ci def xeeb ko pour aar askan bi dañu gis benn message bu ñu touché muy message bu président Macky Sall lancé woo ñëpp lii nga xam ne mooy coronavirus bi ñu gis gestion bu inclusive bi mu ci def boole ci askan bi yëpp waaye nag ñu war a askan bi pour ñu xam. tooyuwaayu affaire bi mbir la mu doy waar moo taxoon ñu organiser ay 72 heures def nañ week-end bee pare passé vendredi samedi dimanche muy 72 heures de sensibilisation bi week-end ñu defaat ko week-end prochain incha allahu rabbi tant que daal mbir mi mu ngi fii ñuy sentir que ne askan bi jëluñ ko au sérieux il faut mu wàcc ci askan bi sensibiliser leen et sensibiliser leen jàppale leen aussi ci lu ñu mën ci li nga xamante ni mooy produit d'hygiène yi nga xamante ni moom la ñu war a jëfandikoo. gis nañ sa wàllu sensibilisation nga wax ne bu fekkee amuñu gel yi nañu góorgóorlu xam ne lii di savon itam am na njëriñ. waaw loolu dafa dafa am solo trop ci ñu koy wax askan bi parce que euh, gel bi mënul jote fépp gel bi mënul mët ñëpp ñun liñ ci mën foofu sax dama ci profiter ma remercier un ami un frère le ministre du tourisme euh, du euh, de l'habitat Abdou Karim Fofana wax dëgg fa yàlla moo ma may produit boo xam ne wàcce nañ ko ci askanu HLM population bi liñ ci am liñ ci mën a am am nañ ko ci mais euh, dama bëgg nit ñi xam tamit ne du euh, produit boobu noonu kese moom la ñu war a jëfandikoo ndax président Macky Sall dafa am benn communication bu am solo bu mu def bu am solo président Macky Sall bu duggee ba ci ci salle de bain di raxas loxoom jël saabu du ne savon liquide dafa manqué. déedéet dafa bëggoon wan askan bi foofu ne savon bi baax na surtout saabu ordinaire bi communication bu am solo le président Macky Sall def foofu mais ñu gis ne fépp fu ñu dem di sensibiliser nit ñi dañuy ñaan ay gel yooyu il faut que ñu xamal askan bi ne nañu raxasu ba set moo ci am solo te saabu ordinaire bi dara mënu ko ci donc looloo taxoon euh, ñu ñu waxee ak ñoom ci condition yooyu ñu waxee ak ñoom mais changé nañ aussi li nga xam ne noonu lañ waxee awoon ak ñoom weekend bee passé ci 72 heures yu njëkk yi bii yoon ni ñu waxee ak ñoom mooy dañoo wax ak ñoom ci tolluwaayu mbir mi fii ñu toll nit ñi dañoo war a toog seen kër yi fii ñu toll dañu war a téye xale yi ci biir kër yi fii ñu toll képp koo xam ne mënuloo bañ a génn boo génnee boo dugaatee sa kër jëlal saabu nga raxas sa loxo ba set nga soog a saafonte ak sa waa kër mais fii ñu toll aussi dañu nekk ci couvre-feu mu doon loo xamante nii ñu bari ci gone yi xëy na tàmmuñ ko xamuñ ko mais il faut que ñu sensibiliser leen ci sensibilisation bi nag mënul weesu boroom kër yi ci seen bopp dellu ca ni nga xam ne noonu la mag ñi daan comporté woo démb mooy lan bu vingt jotee na mag bu nekk kilifa kër gu nekk xool ba xam njaboot gi yëpp daje nañ mu tëjël boppam bunt ba rocci caabi ji téyel boppam ba bër set mu soo ko joxewaat waaw gis nañ la sa sensibilisation am na barab yoo xam ne dugg ngeen fa xalaatuma woon na sax foofu ci HLM la bokk. ah dafa yaatu HLM dafa yaatu xam naa ne yaa ngi def euh, allusion ci euh, fële ci euh, cité des eaux point B mais foofa noonu ngay gis mais point bu am solo la parce que ay ay ay ay ay nit a fa nekk di fa daan seen doole foofa noonu la fay génn ci économie mais kenn xamul nu mu toll ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy teinturier yi ñoom ñooy ñiy suub ñoom ñoo féetee foofa il faut que ñu dugg fa sensibiliser leen loolu tax ñu àgg fa. bàyyiwuñ benn ruqu euh, li am solo du joxe gel beeg yooyu am na solo trop am na solo ku ko mën def ko loolu baax na mais li am solo mooy na askan bi jël feebar bi au sérieux topp ndigal yi mooy tondu ko tere yi topp scrupuleusement lii nga xam ne mooy consigne yi ministère de la santé joxe mais topp aussi li nga xam ne moom la état joxe parce que état lépp luy mesure lu président Macky Sall jël aujourd'hui mais comité boobu nga xam ne ñooy gérer lii di pandémie bi ñooy gérer lii di coronavirus bi ñoo ko xelal président pour que mu mën a jël mesure yooy pour wax rek ne mesures yi ñu jël yëpp lu mu diis diis diis nañ góorgóorlu na askan bi yëpp góorgóorlu topp ndigal yi mooy tund ko tere yi parce que loolu mooy jëriñu askan bi pour pourquoi loolu mooy njëriñu askan bi loolu kese mooy tax pandémie bi mën a taxaw loolu mooy tax ñu mën a faagaagal virus bi mais loolu mooy tax ñu mën a gaaw delluwaat ci suñu ay habitude ci suñu ay activité comme nañ ko daan defee démb gis nañ ne foo dem ci HLM kilifa yi ngay gën di waxal te soo waxee rek dañuy jëfee ban secret nga am ba kilifa yi nangul la. waa loolu nag bon mbiru yàlla la yàlla nañu yàlla defal tawféex euh, HLM wax dëgg fa yàlla euh, ay nit dañ yoo xam ne man même man loolu touché na ma oreille attentive bi nga xamante nii vraiment euh, prêté nañu ko lu am solo la. waaw da ngay gis euh, buñ taxawee yaa ko gisal sa bopp ñoom ñooy génnal seen bopp sax waaw kilifa gi ci boppam mooy génn taxaw ci buntu kër gi booy wax waaw ah, loolu nag dafa am solo ñu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax ñaan yàlla nag euh, ñu jëfee ko ñëpp jëfee ko assurément amul problème ah, amul yenn complication yi mais duñ ko surtout ci couvre-feu bi parce que dafa am lu ma ci naqari loolu lu ma gis euh, gis nga ci suma communication à chaque fois may wax nañ fexe ba. ormal ñi nga xam ne ñooy service de sécurité ormal suñu doom yi suñu frères yi suñu tonton yi nga xam ne ñooy policiers yi wàcc ci kaw tali bi pour kër rek ñu respecté ko ñu yombal la leen liggéey bi fexe ba bu ñu génnee ñoom ci tali bi du ñu fekk ci mbedd bi. bon man bi ñuy tàmbali dama yaakaaroon ne waa HLM kese ñoo la intéressé mais gis naa car rapide ñi di jaay ci mbedd yi ci avenue euh, Cheikh Ahmadou Bamba bi bàyyiwoo kenn loolu daal. yëm na ma mais mbiru Sénégal c'est-à-dire dama jël cest dire gis nga gis nga fi ñu toll mbir mi da nga koy jox rek euh, gëdd bi ko président Macky Sall jox ku xool président Macky Sall seetlu ko temps yi xool ni muy communiquer xool euh, acte yi muy posé nga xam ne am na fu mu teg niveau bu mu teg mbir mi al ñu loolu rek la ñuy jéem nu ñu àgg nag fa mu àgg moom c'est pas possible parce que nit la koo xam ne wax dëgg fa yàlla euh, ci pandémie bi nit ñi bëree bëri dinañ xam doyowaayu président Macky Sall tolluwaayu président Macky Sall ak kan mooy nit ki li ñuy wax rek naan euh, nit ki balaa nga koo xam nga xam euh, situation yu doy waar taxaw mais man il m'a séduit encore une fois il m'a séduit nit la koo xamante wax dëgg fa yàlla euh, dañ koy ñaanal rek mu am réussite ci li nii ba askanu a Sénégal yëpp gis ci seen bopp askanu Sénégal yëpp xam ne euh, am nañ vraiment un lieutenant boo xam ne taxaw na taxawaay bi bi mu war a taxaw ba pandémie bi teel fee jógee euh, ñu mën a continuer activité yi maa doon ci nag comme ni ma la wax euh, du loo xam ne dañ ci war a def ay rassemblement ma taxoon ma ànd ak mon frère Samba Gueye docteur Samba donc moom laa ci àndaloon ak ñi nga gis noonu équipe bi yëpp bugguñ sax rassemblement mais dañ bëgg rek li ñuy wax askan bi dégg ko gis nañ tam ni nga jaajëfalee way docteur. waaw loolu am na solo loolu am na solo trop parce que ñoom ñooñu noonu tey wax dëgg fa yàlla li ma wax ci policier yi rek mais loolu noonu mais dañ koy njëkkee ci ñoom ñooñu commencé ko ci le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr gis nañ taxawaayam di ko encouragé mais mu xam ne aussi askan bi yëpp a ngi ci ginnaawam. parce que mu ngi jëfee li nga xamante ni mooy politique bi président Macky Sall teg mais politique boo xamante ni ñu ngi ko lal aussi ci conseil technicien yi ñi nga xam ne nii ñoom ñoo yor santé ñooñu kenn mënu leen jaajëfal ñooñu dañ leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla taxawu ñoom ñooñu aussi mais taxawu seen njaboot parce que kenn ku nekk ci ñoom mu ngi risqué vie am pour askan bi yàlla na leen yàlla taxawu euh, kenn mënu leen féliciter kenn munu leen remercier dañ leen di encourager rek ñaanal leen yàlla. Euh, message bu simple simple simple simple ensemble ñun ñëpp nañ leen topp ndigal yi mooy tund ko tere yi ndigal yi mooy li ministère de la santé diglé tere yi mooy li ministère de la santé tere yi yi mooy li état digle tere yi mooy li état tere ñu ànd ensemble ñun askanu Sénégal xool suñ kilifa diine yi niñ adhéré ci mbir mi ñu ànd dinañ vaincre lii incha allahu rabbi ñaan yi nag munta ñàkk parce que kilifa diine yooyu noonu xam nga ne ñaan nañ waaye na ñëpp ñaan na catholique yi ñaan na jullit yi ñaan na ñëpp ñaan yàlla dimbali ñu defal ñu tawféex suñu réew mi parce que am nañ tawféex da dul période boo xam ne mën naa ci wax yu bari mais tawféex am na Sénégal te lii nii buñ ci jógee tawféex bi feeñ bu baax a baax na ñëpp ñaan yàlla dimbali ñu feebar bi teel fee jóge rek taw feex bi commencé